la ilaha illallah la ilaha waaw mbokk yi ñoo ngi nii tey jii àndandoo jëm ci première kumte yu njëkk yi waaye ñu ngi jëm fan nag ci Serigne Mountakha Mbacké mi ngi toog ak Serigne Touba waaye nag di ñaan baax sëñam di Fall moom Serigne Modou Mbenda moom mi nga xam ne mooy maam Cheikh Rayane Fall ci kaw suuf suñu borom guddal aw fanam ci wéral ko tubaarkàlla macha allah jëwrin ah tey jii sama dafa daw xam nga lu ko dawloo mooy bi nu àndandoo jëm ci liggéey bi ñu gis njabootu Cheikh Fall gépp génn togg ndog yi nu togg ak yok yi yokk macha allah loolu boo ci dolli yow loo ci dolli taalibe yi lan war lan a def jaayante ba dee ci kaw tali bi loolu rek lan war a def jaayante. ñu ngi lay sant bu baax euh, di la jaajëfal waa di jaajëfal sëñ Bada Sène mi nga xamante ni nii euh, mooy géwlu Cheikh Ibra euh, sëñ Ibrahima ni nga ko waxee noonu rek la mel ni njabootu njabootu sëñ Abdou Fall Mbor ak njabootu sëñ Mor Talla Fall ànd nañ liggéey liggéey bu rëy bi nga xamante ni nii ke seen waajur la woon Cheikh Ibrahima Fall ba nëgën ni mel ni kon sëñ Ibrahima ni nga ko waxee noonu la tey jii la fukki fan ak benn ci weeru koor bu ne xam na ni nag fukki benn kumte la ñu na ne fukki fan ak benn kumte mel ni kon mboolem loo xamante ne Baye Fall defoon nañu ko ci fukki fan yi jàll lépp la ñu dajale def ko ci benn bis ndax ku mel ne maam Ibrahima Fall Mbow rek tey rek toog na téeméeri bool sëñ am li moom mënuñu ko xam kon daal tey jii bu ñu kër Cheikh Mor Tall yëpp dajaloon doon benn liggéey liggéey bu rëy teg ko ci loxol sëñ Abdou Fall Rokhaya moom la yóbbu ñii nag ci kër Cheikh Ibrahima kër Serigne Touba gi ci jumaa ji te fi la yóbbu ndox sëñ Mamar maanaam noonu noonu ko noonu ko sëñ Cheikh Khadim Fall noonu ko sëñ Bara Tall Yaasin defee noonu la ko mboolem njabootu sëñ Mor Tall ak yëpp defee waa ko Serigne Mbacke Ndiaye noonu lañ ko defee ñoom ñëpp ñu liggéey bi macha kon loolu tey nag moo tax liggéey bi faw tey mu am mu demee nii faw yaram daw faw yaram daw tey tey nag dafa am lu am lu ci xew daam la am waaw jox ko daam lu am solo lu am tey loo xam ni ñëpp maase nañ ko xam mooy liggéey bi Cheikh Rafal bi daa màgg daa màgg daa màgg bisimilah. waaw sëñ Bada wax nga lu am solo. ndeysaan sëñ Mbacke Ndiaye Baara moom it génn naa ki kumteem moom sëñ Baara Ndiaye moom sëñ Ibra Ngone jëm ci sëñ Abdou Rokhia jëbal ko liggéey bi ànd ko rakk yi ak mboolem jëbootu sëñ Baara Ndiaye gi loolu di liggéey bu am solo ndax moom mooy jëwriñu sëñ Mor Talla Fall ndeysaan noonu la waajur yi ànde woon diggante sëñ Mor Talla ak sëñ Baara Ndiaye loolu fi leen ko fekk muy liggéey bu rafet tey jii sëñ Abdou Rokhaya mooy jëwriñu sëñ Mor Talla. maam Góor yàlla sàkk. maam Góor dafa mel ne sëñ Basirou Fall. moom sëriñ Abdou Ciss mu sëñ Mor Talla. xam naa ne da ngeen di tuuti. di ma gestu. Euh, ñu fas yéene ànd ak moom. ba xam yan kat lay sànniwaat ci liggéey ci maamam bi. waaw nga xam ne njabootu Cheikh Ibrahima gi ñu ngi koy liggéey. sëñ Basirou baax na kon ñu ngi lay bàyyi xel sëñ Ibrahima. waaw baax na euh, sëñ maam Góor ñi ngi and ak Serigne Bassirou Fall mum Serigne Abdou Ciss moom Serigne mortala Talla Fall euh, si togg yi nga xamne non ko yobbu ni dem kër euh, Cheikh Mouhamadou Mountakha fii si jumaa ji euh, Serigne bi yan kaddu ngay soññawaat rek ak liggey bi nga xamne demb démb ngeen ko seen wayjur wu tàdd wi muy Serigne Abdou Rokhaya Fall di khalifa Serigne mortala Talla. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Serigne ibrahim ñi ngi lay nuyu baax di la ziaré di ñaanal Serigne Abdou Rokhaya mi Serigne Mor Talla yàlla na ko yàlla ko gër ko ñaanal Serigne ali mi nga xam ne Serigne Abdou Ciss Fall di wax ni moom kaddu moom xamna naa ne du mën gudd sa waye kaddu soññeel la xol bu sedd rek xamni ne liggéey bi mom dañu judd rek fekk suñu wajur nek muy Cheikh Abdou Aziz mu nekkoon si jàmbaar lool xam ken mënu ko ci won kep ko xam ñoy tudd te di ko tudd rek war nga seen góorgóorlu baax a baax baax di gërëm tax nak ali bi nga xam moom ànd lool ndax sa sagu kër gi dafa sagal nañ kër gi kep lo xamni bëgg nañ kër bu baax di dee yàlla sunu borom mi nga xam ne mooy borom lépp yàlla doolu defal ñuy xel bu ñëwee rek ñu mën see jëf la kawe sunu njot du soññiwaat sunu bopp di soñ ñëpp te xam ne liggéey bi du liggéey bu caaxaan du liggéey foo kon nag bépp Baay Faal boo xam ne nii ñëw nga li ñu seen si yow li ñu seen si yow mooy ak jub kon nag ñi si soñ suñu bopp di soñ ñëpp suñu Ibrahima Jaw jërëjëf sëriñ Abdoulaye sëriñ moom Serigne Abdoul Aziz Fall mu sëñ Mortala mu doonoon kàddu yoo xam ne si Sirou Fall mi ngi koy soññee di jaajëfalaat mbokk boolem waaye rawatina nag njabootuk Serigne Abdoul Aziz gi sëñ dafa mel ne sëñ Basirou doon na jàllale léegi ay kàddu di sant njabootuk Cheikh Abdoul gi waaye di sant nag ñi bokkal Cheikh Ibra Fall loolu mel ne Serigne bi na si guy démb ci liggéey bi nga xam ne njabootuk Serigne Abdoul Aziz taxawee nañ ko si seen wayjur yi muy sëñ Abdou Fall Rokhaya di xalifa suñu mortaal. waaw jërëjëf sëñ Ibrahima euh, sëñ Bassirou Fall moom sëñ Abdou Ciss noonu xalam sedd ba muy sant mboolem jabaru sëñ Abdou Ciss ak mboolem taalibe yi ñun ñi tamit noonu la suñu xel ndax ñoom ñi nga xam ne ñooy suñuy kilifa nekk suñ kanam ànd liggéey bi euh, suñu xool sedd na ndax liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal seen waajur sëñ Abdou Ciss euh, bàyyi woon yokk nañ ko ba képp koo xamante ni nii kër sëñ Abdou Ciss nga yaakaar rek bëgg nga ci ñoom mu mel ni kon euh, sëñ Bara. sëñ Maam Góor euh, mel ni kon démb la waa kër sëñ Abdou Cissé. dëgg waaw ci njiital sëriñ euh, Seydina Alioune Fall Badara. wallaay di sëñ Alioune Fall Mbawor. Mhm. ñu sëñ Abdou Cissé tuddee ko woo juróom Mbawor. dëgg la démb ànd rakam yëpp. Mhm. yóbbu addi kër yóbbu kum tey kër sëñ Abdou Cissé. waaye ji mu xëyaat mhm. àndaat ak magam. maam Lamp Fall moom sëñ Bissou Fall Xadim Mbodj. ñu togg seen comme ni ko ñëpp di defee ndax eh, eh, eh, ñaar fukki fan ak benn yi dañuy ay yokk waaye ñaar fukki ak benn dañuy toog ay yokk tey gis nga daal si xëy àndaat dañ ko suñu abdi su gépp ak seen mag Serigne Lamp Fall moom Serigne Bassirou Fall Khady Mbodj mm-hmm. ñu toogaat seen i yokk ko jëbal ko seen loo jur Serigne Abdou Fall Rokhaya tubaarkaala sëñ maam góor loolu dama ci am mbégte ndax bu ànd ak sëñ Lamp moom sëñ Bass Khady Mbodj ànd ak sëñ Aliou moom sëñ Abdou ñu def seen i te démb ñu def liggéey bu am solo jébale at yi ñu jébal seen khalifa mam bi di seen khalifa bay nga xamni ne seen bay di seen lepp mu seen dro xeyal loolu ñu def rek loolu lañ wara def seen mam gor tay dama wax ni tay ji depp bis bi da tàmbale lu bare bare bare ndax tay mbolam jabatu Cheikh Rafal gi kenn ku ne amna lo yok tay barki Cheikh Rafal ma ngi ñaan yalla nak li yalla nako yalla jëme kanam yalla nako yalla nangu ci doole Cheikh Rafal kon seen mam gor xam nga lu lu lu waraf lay di wax ni lu duuf ci nabi bi ci cin li waaye nag ñu def ko ay daggat daggat waye nak tay ji xam nga ma ibrahim Fall gis nga jëf joju mu jëf wa serigne Khadim Fall gis nga jëf joju mu jëf nga xamni moy mooy premier sëtub sëñ Mortala waaye nag desul ginnaaw benn yoon moom it loolu daal taw fex la ak yok rek la kon serigne mam ngor do na yor site internet bo xamni ni na ni moy Lamp Fall leeral Touba nga xamni tay ji moy moo leen Lamp Fall ni nu dakar lol nga xamni boy dugg Touba mom ngay dëkk seen waye bo gën Touba mom ngay mujj seen kon Lamp Fall leeral Touba lu mu doone gaay yep gis ko gaay yep setan ko waye sama yaram dafa daw ñoo ngi fekkoog seigne fallu Fall seigne fallu Fall moom seigne Talla Yacine moom seigne Bassirou Awa jaxate mu magma di jambar lol waye fo nga fekk seigne fallu bu wax ci bare du seigne fallu Fall waye bu jëf ji baree nag sëñ Fallou waaye tubaarkàlla mu top ci ginaaw magami rek lu magami bëgg rek ci lol la nekk kon ñoo koy nuyu bu baax diko ko baax seigne mam gor jeuf seigne Bara li nga wax deug la seigne fallu dafa top magam ci ginaaw magam rek seigne bertali Talla muy jëm joo xamanteni ni Eh, eh, yoonu keur Cheikh Ibra jëm ko ndax eh, jëf rek la xam kon seigne fallu jëf rek la mëna xam ndax am gi nekk ci kanamam kep ko xamni ku muy sa kilifa ah di nga góorgóorlu de ndax seigne Ibra Taal yasin mo do dara ak wax waye seigne Bass mi nga xamni moy jëwrinam mom tam non kon seigne fallu non rek lay mëna mel. ñongi am lol ak di di santat yalla bu baax waye nak xam nga Serigne Aliou mom seigne Assis monsieur Abdou Assis Fall jambar la de jambar la de moom it mu sëñ Blasis jàmbaar la de ak maam Xaadim Fall ak njaboot gi yëpp ña ciy góor ak ña ciy jigéen démb dañoo la xasaayu li may sa li dawloo sama yaram bi ñu jëlee gétt gi mu jëm ko sëñ Abdou ma xam ne li des ci seen biir xol te jëfagun ko moo ëpp doole lii lépp fop kon tubaarkàlla maa sha Allah soññal nit ci kanam rek soññal nit ci kanam rek waaw jërëjëf sëñ Bada noonu nga ko waxee eh, eh, njaboot Cheikh Abdou eh, la seen waajur bàyyi woon rek ci lañ démb nga eh, ku ne gis na ni ñu àndee ci kër Seydina Alioune Fall Badara waaye eh, jëwrinam Serigne Cheikh Mor Fall waaye Serigne Khadim Fall Serigne Bassirou Fall eh, Serigne Abdou Salam Serigne Abdou Khadi Serigne Djili ba ci maam Baye Sakk mi nga xam ne mooy mooy mi ñoom ñëpp rek démb am nañ mbégte am nañ kottante ci liggéey bi rëy bi nga xamante ni seen mag ñu baaxee ànd nañ ko ñoom liggéey bi ànd ko taalibe yi ñëppal ko seen moo fi nekk Cheikh Mor Fall Serigne Abdou Rokhaya Fall nga xam ne moom ëmb ji sax da nga koy maam da nga koy dégg waaye boo ko boo ko bu ñu waxul kii la doo ko xam xam ne moom la. Ah. wallaay wallaay solo mooy jëf jëf dafa am solo ndax yoonu maam Saraay fal wi kenn du ci wax ba raw waaye ku jëf nag man ngaa bokk ca góor ña macha allah loolu moo tax ëtt boobu nag di bokk ak ëtt yëpp tey nag wax naa ne kër sëñ Abdou Si Fall mooy kër sëñ Mor Talla Fall mooy kër sëñ Abdou Rokhaya mooy kër sëñ Baara Ndiaye mooy kër sëñ Cheikh mooy boobu mooy penc mi kon nag macha allah bu nu àndandoo jëf-jëf ju toll nii teg ko ci loxob ki nga xam ne nag sëñ Abdou Rokhaya Fall nee ko séenee muy dem nga xam ne am murid saadixa nga ne di dem waaye bu waxee nga xam ne ku bëgg maam maam Serigne Fall nga ne ñoo ngi ñaan yàlla guddal ko yàlla bàyyi ko ci bopp njaboot gi kon sëñ sëñ maam góor Lamp Fall leeral Touba kon kaddu gaa ngi noonu nga wéyale rek waaw jërëjëf sëñ Bara seen mel ñu ngi tolloo ko suñu Abdou Fatah mu sëñ Falilou di waaju dugg nag résidence Khadim Rasoul tey jii résidence dugg fa dana jafe ndax tey jii la day mel ni ndogu yi dañoo ñëwandoo kon daal dañ leen di taalib yi nga xam ne topp si bi Lamp Fall Leeral Touba su ko defee ngeen déglu tur yàlla tuuti rek ñu dugg ci kër gi dëgtal leen li nga xamante ni nii mooy tàkkusaan yaa ngi seetaan tey gis lu baax te bëgg a gis lu baax xam nga ni Cheikh Rafal maa ta karam li Serigne Touba li digle ba lu ko togg di ko Serigne Touba loolu nag ñu ngi koy faal ci loolu rek lañ ko fiire nekk loolu nag kon seen Cheikh kàddu gi rek laa lay bàyyee ñu déglu

tàmbalee woon ku gisoon fukki mbool ak ñaar ak ku gis beneen fu mbool yi toll nga xam ne bi nangu na loo xam ne fukki mbool ak ñaar la woon mu àgg ba ci ay junni junni junni bool loolu kawe na ñu ngi soññi mbooleem koo xam ne nag ab dugub nga rawat na nga di murit rawat na sa yaakaar jaar ci Cheikh Ibrahima koor gi na nga yees laa sa bopp yees laa sa pas di joxe ci kumte yi di joxe ci ndog yi ngir am li nga bëgg ndax loo xam ne soo ko defee mu am soo ko defee mu am def ko ngir mu am moog sag dafa am dafa am tawfeex te sëñ bi fi ñu defee ak bëggam am sëñ bëgg deful ak bëggam moom mu am li mu bëgg te ñuy ngir ñu am li ñu bëgg foo si dëgg sëñ bi kon sax dëgg sëñ bi sëñ Alioune Bara waaw daam na may laaj général ndax nga xam ne ne fan yee def na liggéey bu rëy moo xale ne maam si Arafa te koo xam général daaw dem na ba tayle boppam seen gir général foo toll si liggéey waaw ren comme te yu njëkk yi yóbbu nañ ay limu nag déet bëgg na nga xam lim bi de. waaw yóbbu na ñaar fukki ak gileem. waaw jox ko fi am di. sëñ bi nag la waral loolu daf ñoo bàyyi ca ba mooy Mbacke. Mbacke dana seen karo yi ak peinture ba ak électricien ba ak sëkk ba ak yëpp ñu ne ko sëñ bàyyee fa lañ nekk fa lañuy xëy sax suur nag wa waaye ñu ngi wàññaat fukki fan ak juróom-ñaar bi su Badar mooy jëf ji nga xam ne Aliou Sefane da ko ameel waa ahlu Badar yi waa ahlu Badar yi ndax asmaa ahlu Badar fukki fan ak juróom-ñaar la woon ci weer koor te ñoom ñoo waral tey jii lépp am ndax bu trop seen seen nga jàmbaar ak seen fit moo waral lislaam taxaw ba léegi asmaan ahlu badar googu nag dafa am liggéey boo xam ne ñoom dañu koy bàcceeloo ci kër Cheikh Fall waxtu woowu la ñuy mu fukki juróom-ñaar da ci togg ay ndab di ko jox suñu am di faal moom suñu wul faal ñu di ko booleeg ci ay nag ak i gileem di ko jox sëñ Amdi Fall ñoom la ñuy waajal incha allah sëñ Bada bu fekkee loo bëgg a questionner général parce que général ko xam-xam ko ci liggéey bi Cheikh Ibrahima Fall ji waaye xam ko ne euh, liggéey bii nga xam ne mi ngi koy liggéey si ndog yi yàqulu ko dara sa sànca ba nekkoon Mbàkke dëgg la xamoo li ñaan yàlla yàlla guddal sa ndax euh, sëriñ Cheikh jëmb yàlla yàlla doon di leeram ban lay sa jërëjëf yaakaari jëm ñi ban lay sa yaakaari jëm ñi jaaju ban lay sa ban lay sa yaakaari jëm ñi jaaju ban lay sa sànq damaa dem barabu maam Sèye bu ko santale ko baax ki comme melo wi. ah yàlla ba day yéem xam nga mooy lan. xeet muy nu may jàngalaat ak bëgg sëñ Touba. ndax maam si Ibrahima bëgg sëñ Touba la lii lépp ba nga gis mbooloo mi. kon lu waay bëgg sëñ Touba doyul. looy wax ci ndogu yi Cheikh Fall yi nga xam loo ci yëg. dama ne la ndogu yi bu yàgg la ma yóbbu. yëg ko moo tax ma dem barabu maam si Ibrahima doon ko santal ban lay sa jërëjëf yaakaar yi jàmm ndax ci loolu la ne.

lépp sëñ Touba ko ngor nan góorgóorlu ci sëñ Touba mi da koy sant naan ko balay si dama gis mu boo nee balay si jërëjëf ñaari yoon bamtu ko dafay gis mu yóbbu la ci beneen àll ma xam ne am na loo yëg loo xam ne si dala ko roof loolu mu waaw loolu mooy yëg ku baax ki di ko dund ndax boo amoon foo nekkoon moom fuñ leen di soo dee ko da ngay sant ba xotteeku ku xamoon démb. xam tey boo déggee ma wax Balla yi sa jërëjëf doo ci commentaire lu nga neexal ma. yaa ngi dégg. am na lu ma ci da ne. kuñ dimbale. di nga wax boo waxul di jëf boo jëful di wane. man nag kenn arrangé wu ma li may wax rek ku dul sëñ Bamba arrangé wu ma. moo ma def nii ma mel. yaakaari jàmm yi moo ma def nii ma mel. damay wax ne lii. kum yeewul dara du la yee. maam Sebre. waaw liggéeyal sëñ Bamba. boo demee fële lépp di baax. mu tëddaat fii léppam di baax muy nelaw léppam di baax muy doxantu léppam di baax kon kooku tey mooy lépp bëgg gi sëñ Tuubaa nag moo koy roofaati balay sa jërëjëf balay sa yaakaari jëm jëjëf balay waaw na tëjee loolu waaw waaw sëñ Bada mi dinaa wax ci moom sama waay bopp la dama bëgg nga tëjee jërëjëf borom Tuubaa mooy waaw balay sa jërëjëf mënut a ñàkk ndax lépp di moom mm. lépp di sëñ Tuubaa lii ndogu yi nan xam ne du am du am po surtout loolu mm. kuy ñëw ci ndogu yi mm. war ngaa mën a defar sa jëmm xëy parfum yu neex togg say togg ba pare jébbal ko ci ay teggin maam Seble lii mu daj noflaay may ko ko xaw naa rey boppam ci sëñ Touba nee na kër sëñ Bamba gii lu dul Seex loolu dégg na ko fa kon tey ndogoom yi dañ koy sellal di ko teg ci temps di ko teg ci heure di ko jox joxin bu wér mooy bëgg sëñ Touba gi. balay sa yaakaari jàmm ñi jaajëf balay sa. balay sa jërëjëf yaakaari jàmm ñi. ban lay sa jërëjëf yaakaari jàmm ñi ban lay sa yaakaari jàmm ñi jaajëf ban lay sa ban lay sa jërëjëf yaakaari jàmm ñi ban lay sa jërëjëf yaakaari jàmm ñi ban lay sa jërëjëf yaakaari jàmm ñi ban lay sa jërëjëf yaakaari jàmm ñi ban lay sa jërëjëf yaakaari jàmm ñi ban lay sa jërëjëf yaakaari jàmm ñi ban lay sa jërëjëf lii boo gisee ma koy sant ko baax ci sëñ Bada sëñ Tuubaa amul lu kenn amul jamono ju ne sëñ Tuubaa day feeñal kéemtaan ci xarnu bi ndax daa moom xarnu bi sëñ Bamba li mu wane dafa leer naññi na jàmm ñi ne ko yaa wax réew mi kenn mënu koo defar ku ko baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waaye macha allah tey ñu ànd ak euh, Lamp Fall Leral teel Touba. la ilaha illallah la ilaha.